ñaari rëccu ba fii fii zakatil xarsi ci azakay mbay azakay mbay liy jóge ci suuf quoi li ñuy bay moo xam ay bay arrosé ak affaire yi noonu en tout cas parce que fii bayaat yi fii bayaa ni zakatil xarsi woowu moom woowu moom ah mbay li ñuy wax mbay xam nga li ñu xam nga li ñuy bay bari na garab yi li ci jóge bari na waaye am na si lu ñuy joxe azaka am na si lu ñu joxe azaka comme sànq li ñu waxee woon azakay jur ne bul yar ginaar si kër gi de tax nga ne juru kër la waaw bul yor sa baam kuux wala nga yor sa neen déedéet juru kër ñett rek la nag gëléem ak gàtt mbay tamit daa am loo xamante ne nii ci la ñuy sant ñu génne ci azaka li ci des mu ne waxuwa moom li ñuy wax alma alxasu nee na almuqtaat mooy la ñuy denc almutaxidu li nga xam ne dañ koo jàpp li la ayshi ñeel dund gaaliban ci la gën a noppi lépp li ñu jàpp ne moom la ñuy dañ ko jël xam nga boo bayee ba noppi bu lay dugub la nga dajale dugub bi daal di yóbbu ci sàq ma denc ne sama dund ren ba déwén moom mi ngi nii si ginnaaw kër gi sa àll bi soriwul nga bay fa bisaab fa bay ñebbe di fa bay leneen ak leneen yooyu noonu pour lan lay jariñ mooy ay ndawal lay doon ay pataas ak ñoom yëpp da nga koy dajale pour di ko teg si kaw ndab li si kaw si kaw kii plat bi mais xam xam xam nga xam nga cere kese kese kese kese kese kenn du ko lekk dañ si def ñeex yi ànd ak ñeex mi yooyu nee na loolu nekkul dund cere ji si boobu mooy dund si cere ji dañuy génne avec lii indi cere quoi li ñuy bàyyi pour mu indi cere ñoom ci li ñuy génne avec bu dee ceeb moo gën a nekk si dund bi mu ne ceeb ba ñuy dajale bàyyi ko mu bari bari bari nee na loolu laa leen sant ngeen génne si avec mais tomate bi nga xamante ne nii mooy tax ceeb ba xonq bu ngeen bu ngeen ko bayee ak ñoom ñaam bi affaire yooyu noonu su ko may yooyu nee na doo si génn affaire parce que yooyu du yu ñuy dajale denc ko pour dund boobu moom almuqtaat almutaxidu li ñu jàppale la aysh ñeel dund xaaliban ci la gën a nopp baatu xaaliban gis nga tout souvent di nga xam nga xam nga ruti am na plat la ruti plat la boo xamante ne ni base bi ñaam bi la ndambee am na plat bi base bi ñebbe la xam nga xam nga ñe foofu ñebe bu fa amul plat du am mais boo yoree cere boo xamante ni da nga ciy def ñeexu baase baase bi mën na am ñebe mais su ñebe ji ñëwul du tee mu nekk baase waaw léegi nag léegi nag mu bëgg ñu ñu ràññee la affaire yooyu quoi mu daal ne fataj bi dana war azzakaatu azaka fil xentati wa shairi yii nii ay dugub la am na ñu wax ne am na am na ñu wax ne xenta mooy suuna bu boobu noonu ñu xam am ñu ne ma shair mooy suuna bi am ñeneen shahir mooy mboq xam nga en tout cas diggante bëti ak suuna affaire maa ngi mel ne nag ab ko maa ngi mel ne ku bay dara xam nga dugub di ngay di ngay gis di ngay di ngay gis nii si si marché yi su ma nekk si ay kii nii rek saako yi noonu moom mooy suuna dugub simple quoi suuna léegi moom am na ñu ne mooy mooy shahir bi am na ñu mu wax ne shahir mooy mboq am na ñu ma ko wax waaye war ursi ak ceeb wa nax yaa ak yu ndóog yooyu yi mel noonu bële mi ngi ci biir ak yeneen xeet dëgg dëgg duma baykat nee na wa fil xataal nii ab ensemble la quoi kal adati wal basilati wal fuuli wal ximmati xaw ma leen yi xaw ma leen wa fi tamri war na ci tàndarma wa zabi wa fi nee de waaw wa fi tamri ak ci tàndarma wa zabi bi am ñu wax ñebbe wa zaytuni olive mu ne waaye wala tajibu nag du war bu mu azaka fil xasabi ci lu mel ne ñaam bi suukar bara garab yu yu bindoo noonu wal bo wal buquuli ak reen ak yi nga xam ne ay reen lañ xam nga ñaam bi reen la ak pataat wattiini ak figg wal fawaaki yi ak xeet fruit yi karrumaan ni ki grenade ne n yooyu azaka waru ci waaye nag am na ay déggin gis nga li ñuy wax naan azaka war na ak azaka waru ci am na ay déggin surtout jamono ji ñu nekk xam nga kër lan lañ ci xam dëkke ay oto xam nga nit mën naa am benn oto boo xam ne da koy war waaye keneen day am ñetti oto ñetti yëpp lay wax bii long voyage bii pour suy xëy bii pour suy dem seeti ay xarit affaire yooyu quoi ay oto yu bari keneen am keneen nekk ci commerce boo xamante ne nii yii ñu ne dañu ci gën a azak waaw moom lay moom lay jaay léegi nag bu ci nekk am na ay déggin yi nga xam ne da nga kaa am da nga kaa am di ko jëfandikoo kenn mosula see sant asaka kër gi nga dëkki kenn waxal ne sa kaay na nga ko xayma joxe asaka joxe asaka de mais ki am léegi ay immeuble la luyee leen nag muy génne xaalis bu bëri ndax asaka war na ki nga xam ne dafa yor ay taxi douze taxi taxi di liggéey chaque jour ñu verse xam nga xaalis bu bëri lañ koy indil léegi boo nee oto kenn du ko génne asaka rek nekk léegi loolu lan mooy atte bi keneen ki nga xamante ni dañ ne ko fruit moom kenn du ko génne asaka moom mu am vingt hectares yoo xamante ni lépp mango la mango yi di meññ bu baax a baax a baax trois fois par année par exemple di génne lu bëri ba muy importé léegi lan lañ koy wax dañ naan ko mango ji léegi nekkatul mango dañ xamoon nga xam ne dañ ko daan dañ ko daan aji yóbbu si kër yi su ñaanee pare di ko dese di ko deseera wala reer wala soo amee gan nga daggal ko fa mais léegi beneen mango la mais mango bi ñuy commercial bi ñuy commercialiser la dañ koy jaay dañ koy dañ koy sax importé exporté léegi yooyu noonu dafa laaj ay gëstu ay xalaat ay détails yu bari yeneen téere yi yu bari ay surtout ay téere yoo xamante ne téere yu xaw a bees la quoi borom xam yi nga xamante ni ñoom yu méngoo ak jamono la yu am yaatu xam-xam bind si ay téere yu bees développé nañ si ay wax yu bari ay wax yu bari man nag comme téere téere yi borom téere yi foofu la si yem foofu la si yem xaw man nga am na ay coow yu bari dafa am benn jour dafa tombé sax bës naa fi dafa baa ngi jégalu dafa am benn jour ma toog nii suñu kër taal ban télé taal yaakaar naa 2STV fekk Maodo Faye am ku mu invité ñuy waxtaan azaka dafa tombé woon ak période yi ñuy kii azaka ñuy waxtaan azaka mu jox ko une série de questions ci affaire yi nii benn par benn quoi ñuy demante ñuy waxtaan nii waa ji répondre ba eggal bi mu paree rek ma dem RDV benn suba teel la yaakaar naa tombé sax keneen ki ñu koy interrogé ci asaka même question yi nii même ñu ñu posé ko ñoom ñaar ñu répondre réponse yoo xamante ni diamétralement opposé barki yàlla ba ay réponse yu wuute jóg bokkuñu sax kenn ku nekk borom xam-xam nga ñu wax argumenté expliqué li ñuy wax mais affaire bi wuute barki yàlla waaw ni ñu koy génnee sax day change li génne sax day change waaye nag yàlla baax na léegi nag yow ma asakay mbay bokkul ak asakay jur boo ko bokkul ak asakay kaye ndax yee benn bu ci nekk na am at lu ñuy wax xaalis bi nga denc ren ba déwén soxla woo ko nga génne asaka jur yi nga yor di ko yar ren ba déwén ñu am fi at ñoom nga génne asaka waaye bu dee mbay moom tàmbali nga bay su ñoree ba ñu mën kaa lekk da ngay daal di dajale jox seen borom seen wàll yow nga door dem duñ la wax na am at xam nga boo xoolee sax xam ni xam ni xam ni xam ni loolu du jàll waaw léegi nag moom am na nisaabam ñaar fukki dinaar la ñu waxoon ci wurus wax ñaar téeméer dërëm ci xaalis wax juróomi gëléem fanweeri xar ak ñeent fukki gàtt wa nisaabul xar nisaabu mbay asakay mbay nee na xamsatu aw suqin mooy juróomi bërigo soo bayee ba eggal bu dee da ngaa bay ba eggal li nga bay nekk ñaari bërigo kese waaye du la doy yow dalal sax doy waxuma laa nga naan da nga siy maye da nga siy joxe yàlla ne yërëm naa la comme man daal dëgg dëgg samay jaam yi ñàkk nañ gaa waaye nag yaakaaruñ si yow bu yaakaar si yow ñoom dara de nañ dem si borom 15 bërigo yi 50 bërigo yi baal na si mais ki nga xam ne matal na juróomi bërigo nag mu ne ko maye ci xamsatu aw suqin wéy ya alfu ritlin mooy ñe te junni rit la wasettu mi ati ak juróom-benn téeméer bil Bagdaadi ci peese Bagda Bagdaadi wa kullu ritlin ritil bu nekk nag nee na mi atu dirhamin mooy téeméeri dërëm wa samaaniyu wa samaaniyatu wa ashruna dirhamin bi dirhamin makki yi loolu wow wow loolu xamsuna wa xamsa xabatin lii ma am solo lii nii moo am solo min ash-sha'iri al-mutawassit bu bu bu pees pees kii peese bii xam nga juróom bërigo yi wax ji dana mën nañu fa yem waaye boo précision xamsuuna wa xumusa xabbatin min ash-sha'iri lu toll nii mboq bu diggu doomu mboq bu dee sha'ir mooy mboq bu dee sa- saxeer mooy pe- mooy pepp nag suuna nag ah benn da xaw ma fi xaw ma fi lan la waaye en tout cas nga am si xam suuna waxumu saa xabbatin nga am ko si benn si nga am ko mi nga multiplier ko ay xaw ma lan alfritune nag affaire yi nii nii nii ay précision la lii xaw ma ko mooy li ñu doon wax ci ci seen ñaar téeméer bi ñii di wax li ñuy di wax la affaire askan yi nii ñun xamuñu ko duñu ci benn utilisation xamuñu ko waaw waaye lu important mooy juróomi bëri ko boo ko amee ñu ngi génne asaka waaw kat wa innama tuxtabaru nee na xamal ne danañu xaar al awsuqu bërigo yi nii baada wadai ma fiha min al xasafi wa rutubat bu ñuy wax naan da nga gën kii juróomi bërigo boo ko amee da nga génne asaka waxuñu nga bay ay dugub rek jël mbool yi yëpp dajale leen boole kii déedéet dugub ji si boppam lañu wax bu dee luy tooy waaw xa- waaw kii woo kii woo kii woo wowal nañ ko tuuti lu ci tooy da- dañuy tenir compte ci liy tooy tenir compte ci liy waw xam nga anam sax sàndarma muñu wéy wal muxraju nee na li ñuy génnee min zakatal xaalis ci azakay bay al usr mooy fukkeel ba ngi lii moom si dara mooy fukkeel ba mooy azakay mbay dañuy wax waa ji ne ko li nga yor da nga koy diviser par 10 nga joxe benn ba wala nga diviser ko par 20 nga joxe benn ba mooy par 10 nga joxe moitié bi quoi léegi nag pour kenn ki ci des pour moomam ba ci des ña kii moomam un vingtième kii moomam un un dixième kan moomam un cinquième mooy kii muy waaj a wax wal muxraju li ñuy génne min zakat xaalis ci azakay mbay al ushr mooy fukkeel ba un dixième fii ma ci loo xamee suqiya nandalees na ko min gayri mashaqatin ci lulu coono kama istamaay li fi ma ko asamaan yow jiw nga am jiw nga ko si tool bu baax dem toog asamaan taw ba mu tooy xep xep xep affaire yi màgg nga jël def opération yi ci war manœuvre yi daal di yóbbu sa yëf waaye wa nisful usri nag genn wàll fukkeel la indi mooy un vingtième fii ma ci loo xam ne suqiya nandalees na ko bi aalatin ci gu- jumtukaay kaddawaal yi koo xamante ni daa am ay oto am ay machine am engrais am ay tuyaux yu ko indi ndoxam forage yëpp daje wala sax ay teen la am wala ay sayaan am ka ay effort la def pour mu arroser toolam toolam ba mu tooy nee na kooku bu bayee ba égal na joxe un vingtième bu mu joxe un dixième asakay mbay pare na ci waaye comme dañoo waxoon alal duñ ko jagleel jamono duñ ko jagleel kem bi ñu ko jagleel ñu war ko jëmale ci ay jëmm yu ñu ko jagleel jëmm yooyu la lay waaj wax fii faslun buntu la buy teqale fii bayaani ma fii bayaani man ci bérélu ña nga xam ne tas tusrafu def na soppi loxo wala boog bérélu ka nga xam ne tusrafu def na soppi loxo ñeel ko ak zakaatu azaka moo tax tudd faxu des na jiñ joxe génnee li ahadil asnaafi ñeel kenn ci façon yi xeet asamaane yi ñett almadkuur yi la ñi xam ñi nga xamante ni tudd na leen fi qawlihi taala ci waxe yàlla ji suratu tawba fi yàlla di waxee naan innama sadaqatu lil fa lil fuqaraa wal masaakin al aaya ñu jël ko wala ñu bañ ko jël cey waay jël yàlla ñu jël sutura nee na al awalu ku ci njëkk al faqiru mooy faqira bi wa huwa soo xamul faqir mooy alladi ka nga xam ne yamliku am na moom na achay à lëf waaye alertir lu néew moom tuuti la am amul lu ko doy allazi koo xam ne laayeg la nga xam ne moom laayeg fii doy ko li ay fii ñeel dundam moom moom li am na dara dëgg la boo demee sax fonctionnaire la waaye njabootam moo yaatu deux cent mille lay fayee ko par mois waaye am na ñett jabar ak quinze gos bàyyam a ngi dund ak yaayam nijaayam tantaam ñëpp moom lañ yaakaar maam bu góor ak maam bu jigéen ñi fi goroom yi ñoom lañ yaakaar si deux cent mille am na dara ga waaye bariwul nag bokkul ak ki am deux cent mille te papaam soxlawul xaalisam yaayam soxlawu ko amul jabar ab deux cent mille pour moom la joxewul dépensé wul dara gaz sax jëndu ko ak suukar xam nga bokkuñu léegi keneen moom xam naa dara denc alal ren bu déwén daal di ñëw jox waa ji dañoo bokk fu ñuy liggéeyee kat donc faqiir mi ngi ci société bi di dund ak nit ñi di dox di dem ñemewul laaj kenn ndax day xëy di wàcc di daan dooleem wa in kaana donte nekk naa yemli ko di moom nisaaban lu mat nisaab laa yaqumu bihi wala bi ayaalihi بسرعة وإن كان صعبا جعله وجوبا قوله فإن كان للإنسان waaw donte donte donte am na nisaab waaye nisaab bi laa yaqumu bihi doyu ko moom waaw man sama sooy lii la salaamaaleykum pourtant maa ngi ñëw de.